sant yàlla ak kontaante bu rëy rëy ndax ñun nekkee ne suñu àdduna yëpp ak suñu bëgg-bëgg yëpp mooy liggéeyal Cheikh Ibrahim bàyyi ñu si jëmm te nekku fi ay njabootam teew lu tolloo fukki doomi bàyyi daanaka teew si jotaay loolu lu muy am bëriwut kon amul lu ñuy def rek loolu sant yàlla ak kontaante bu rëy rëy daanaka soo xoolee surtout Cheikh Ibrahim moom boo doon compté ëpp nañ fi ñaar fukk julli ñi ñëw nañ wax nañ fi lu baax yedd nañ xale yi wax nañ xam-xam teg nañ leen si yoon te loolu sëriñ borom xam-xam def kon ñu def rek mooy sant yàlla te wax ne na ñëpp ndaw ñëpp uti Cheikh Ibrahim te jublu ko ndax ñu xam lan la indi ndax Baye njëriñ la indi waaye Sénégal dañ ko defee xam waaye ñun comme ay jeunes lañ comme ñoom nekkoon ci réew mi nekk ci lu ñu nekk mooy affaire bëgg affaire banditisme bëgg affaire réy réylu bëgg affaire gis sa bopp Baye Niass day ñëw na effacé loolu moo tax ñuy ñëw def yu mel nii pour xale yi yeewu ci Cheikh Ibrahim loolu rek moo waral jotaay moo tax jotaay jotaay am la yoo xamante ne bëgg nañ ndaw yi di ci bàyyi xel buñ ci bàyyi xel moo gën yii yi nga xamante ne dañ koy jël ngir fàtte seen problème yi mooy drogue yeeg problème yi indi seen bopp yooyu yëpp lu koy dindi du dara lu dem xame yàlla rek ak topp Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu kon maa ngi ci on ak xale yi